asalaamaaleykum euh, bonjour tout le monde amati mbekkee bu baax a baax euh, retrouver leen ci seen matinale d'information matin bonheur comme chaque matin nuñ koy defee euh, tey nag nekk jeudi 8 août 2024 ñu amati mbégte bu baax mbokk yi di leen nuyu fépp fu ngeen munti nekk di leen ñaanal yendoog jàmm comme ni ñu koy defee chaque matin dinañ leen jox actualité wante tamit waxtaan ak yéen li nga xam ne moo tukkee ci conseil des ministres ndax xam ngeen ne alarba bu jot aussi euh, gouvernement bi dafay amal conseil des ministres démb nag conseil de ministres amoon na donte euh, communiqué bi xawoon na guddee lool ñu bëri doon ko xaar am na ay changement yu bëri ay nomination yu bees itam loolu yëpp dinañ ko yaatal ci kanam tuuti tey nag euh, ñu am aussi mbégte dinañ fi daral suñu gan ganu matinal bi tey Euh, di wuyoo ci turu docteur Ali Anne moom nag sociologue la wante tamit nekk expert en décentralisation euh, territoriale ndax loolu yëpp dinañ ko waxtaanee ak moom waaye itam ci wàllu politique aussi mu ngi ciy yongu loolu yëpp dinañ ko gën a yaatal ak moom euh, docteur maa ngi lay nuyu d'abord dalal la ci suñu matinal matin a Abdoulaye ñu ngi lay nuyu. Euh, di nuyu sa téléspectateur yëpp di nuyu Sénégal ak euh, képp ko ñuy seetaan ci télé bi. Mm-hmm. am mbégte bu baax a baax euh, dalal la fii docteur ñoo ngi lay dalal bu baax a baax ci matinal bi comme ni ñu koy defee chaque matin dinañu gën a yaatal ak yow ci kanam tuuti ci nomination yi am démb ci conseil des ministres wante tamit ak li nga xam ne mooy dogal yi kilifa yi jël. jëm ci li nga xam ne aussi mooy euh, tolluwaay réew mi ak doxalinu réew mi basiru Bassirou Diomaye fay loolu yëpp dinañ ko yaatal ci kanam tuuti ak moom docteur Ali ann waaye balaa boobu dañu leen di jox d'abord ci xibaar yi nga xam ne moo tukkee ci boobu les conseil des ministre amoon démb ñu gën ko yaatal itam commenté ko ak suñu invité comme nuñ ko waxee euh, démb conseil des ministres nag am na nomination yu yees kii euh, moom Euh, surtout ci euh, administration territoriale bi maanaam préfet yu bëre changé nañ leen ak ay sous préfet kii nag moom jibi Diallo la moom euh, sous préfet Dakar Plateau la démb lañ ko fa jëlee moom Djibi Diallo nekkatul sous préfet bu Dakar Plateau moom changement yu amoon démb nag daf ko daal di jëlee jëlee nañ ko ci fonction maanaam dañoo wax ne yeneen fonction daal lañ ko lañ ko lañ ko woo moom sous préfet bu euh, arrondissement Dakar Plateau ki ko remplacé di Khady jatu seen nekk secrétaire d'administration euh, matricule de solde moom moo daal di remplacé kii di Djibi Diallo ci sous ci sous préfecture bu arrondissement bu Dakar Plateau loolu nekk nomination bu am démb ci conseil des ministres ba tey ci conseil des ministres également euh, démb aussi am na nomination ba tey ci fi nga xam ne mooy euh, euh, ndakaaru ba tey ci ki nga xam ne mooy Al Hassan Sall moom moo nekkoon préfet bu Dakar moom itam jëlee nañ ko fa ki ko remplacer jamono bi di ki nga xam ne moom mooy Ousmane Kane moom moo daal di remplacer kii di Al Hassan Al Hassan Sall voilà Al Hassan Sall moo nekkoon. Euh, préfet bu Dakar jëlee nañ ko fa muy changement aussi bu am démb ci conseil des ministres muy loo xam ne aussi euh, bokk na ci nomination yu am démb ci conseil des ministres ginnaaw bi dogal bi nga xam ne président Bassirou Diomaye Fall Faye jël na ko démb ci conseil des ministres nomination yi ba tey ki nga xam ne aussi euh, moom mooy gouverneur bu région bu Saint-Louis di ba dara Samb moom tamit jëlee nañ ko foofu nga xam ne mooy Saint-Louis muy nomination bu am démb ci fàttali nag moom Aliou Badara Samb mi ñu bëri ràññee woon nañ ko ci ay jamono ci ay événement mars yu amoon fii moom Aliou Badara Samb jamono bi nekkatul gouverneur région bu Saint-Louis loolu aussi di nomination bu am démb ci conseil des ministres ba tey ci nomination yi également dañuy dañuy wéy euh, ñii moom ay rappeur lañu ñu xamee leen ci wàllu musique di euh, Nidof ak kilifa ñoom itam dañ leen daal di nome ay PCA waaw loolu aussi di loo xam ne am na démb ci conseil des ministres moom euh, Nidof euh, comme ni ñu koy waxee Mortala Gueye alias Nidof moom la ñu daal di nommer PCA euh, ginnaaw loolu aussi am na kii di kilifa moom aussi ñu daal di ko nome lii di PCA bu Grand Théâtre National donc loolu aussi di ay nomination yu am démb loo xam ne daal démb ci conseil des ministres comme ni ñu ko waxee donte guddee woon na trop nomination yi bëree bëree woon na trop aussi moom ni dof jamono bii daal PCA la comme ni ñu koy waxee moom ni dof euh, monsieur euh, le président conseil d'administration daal lañ ko war a mën a woowee muy loo xam ne aussi am nañu jàpp ne bon partage gâteau waaye ku nekk ak sa xalaat dañuy jàpp ne rek président moo am droit nommé ku ko neex donc loolu aussi di loo xam ne dañu gën a yaatal ci kanam tuuti ak suñu invité ba tey ci xibaar yi dañuy wëy ak waa régie waaw kii moom Néné Fatoumata Tall la moom aussi euh, moo yoroon FONGIP moom jamono bi nekkatul ci bopp FONGIP dañ ko daal di remplacer loolu aussi di dogal bi am démb ci conseil des ministres euh, ginnaaw euh, ginnaaw li nga xam ne kilifa yi jël nañ ko jëlee nañ ko ci bopp FONGIP moom Néné Fatoumata Fatoumata Tall ñu daal di ko jëlee ci postam boobu nga xam ne moo nekkoon administratrice général bu FONGIP Euh, nekk itam euh, responsable politique APR foofu ca Géejawaay jëlee nañ ko fa ki ko remplacé di euh, madame ndey faatu mbooj moom comptable la moo daal di remplacé Néné Fatoumata Tall ci li nga xam ne mooy bopp bu FONGIP ba tey ci xibaar yi ñu wéy lii itam di beneen mbir bi am muy wàllu immigration clandestine ndax doomi réew Sénégal aussi ba tey ñoo ngi dem ñoom nag dafa am fi nga xam ne moom la ñuy wax euh, république euh, dominicaine ñu daal di fa gis ñi nga xam ne aussi maanaam ay yàq la ñu daal di fekk ci booru plage ba muy loo xam ne aussi bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu migration euh, ñoom dañoo bëggoon xëy na dem Espagne seen gaal daal di mujjee ci boobule île mu nekk lu doy aussi lu am ay doomu Sénégal toll nañ nag ci 14. Euh, nit yoo xam ne ay originaire Sénégal waaye itam Mauritanie réew bu Mauritanie ñoom la ñu daal di fa fekk am na ñoo xam ne ràññee nañ leen waaye am na ñoo xam ne ràññeewuñ leen muy lu doy waar aussi lu am ci wàllu immigration loolu itam dinañ ko waxtaanee ci kanam tuuti ak suñu invité docteur Ali Anne nekk itam sociologue loolu yëpp dinañ ko yaatal ci kanam tuuti xool li waral phénomène bi di daal di yokk ba tey euh, ndawi Sénégal di génn réew mi. ginnaaw actualité bi dañuy dem yër itam lu gën a fës ci li nga xam ne mooy yéenekaay yi dinañu xoolal leen li yéenekaay yi xëye tey ji ci alxamis bi ñëwaat euh, gën a yaatal waxtaan bi ak suñu gan dañ koy dooree ak yéenekaay bii di bés bi le jour bés bi le jour ñëw na itam ba tey ci euh, nomination yu am démb conseil des ministres muy euh, ki nga xam ne mooy Mortala Gueye euh, ñu koy wax ni dof nekk ñu nommé ko PCA kilifa itam nekk rappeur bokk ci groupe kër gi ñu nommé ko PCA Al Hassan Sall moom daal di jógee fii ci Ndakaaru moo nekkoon préfet bu Ndakaaru loolu bés bi le jour xëyee na ko waaye ba tey bés bi le jour ñëwaat na itam ci élection législative ak local euh, lu mu daal di wax mooy enjeu donc couplage mu jàpp ne mu daal di ko yaatal bu baax a baax jàpp ne ci weeru juin 2023 euh, organisé nañu onze élections euh, lu toll ci juróom benn at muy ñëwaat daal ci bilan bi nga xam ne loolu la élection di coûté réew bu Sénégal loolu yëpp mun ngeen ko fekk nu mu gën a yaatoo ci yéenekaay bi di bés bi le jour beneen yéenekaay euh, Vox Populi daal di ñëw ba tey ci euh, li nga xam ne aussi moo jëm ci dogal yi nga xam ne président Bassirou Diomaye Faye jël na ko démb ci conseil des ministres chamboulement dans l'administration territoriale mu daal di ko tuddee jeu de chaise musicale chez les gouverneurs préfets ak sous-préfets Bassirou Diomaye Faye daal di chambouler administration territoriale neuf gouverneurs sur quatorze euh, changé nañ leen Al Hassan Sall bu daal mu daal di jógee Dakar dem fi nga xam ne mooy Saint-Louis promotion itam am na Diadia Dia préfet de Saint-Louis moom moo euh, moom aussi jëlee nañ ko fa yóbbu ko Sédhiou euh, ki nga xam ne aussi mooy <coughs> ngeen baal ma ngoone Cissé préfet de Guinguinéo nommé nañ ko gouverneur de Fatick Euh, ki nga xam ne aussi mooy préfet de Guédiawaye nommé nañ ko gouverneur de Matam Moustapha Diaw préfet de Kaffrine ñu daal di ko nommé gouverneur de Kaffrine Moustapha Ndiaye préfet de Cap de Pikine moom mooy doon jamono bi gouverneur bu Kolda sous-préfet de Dakar Plateau ñu daal di ko woo ci yeneen fonction comme ni ko yéenekaay bi waxee loolu itam mun ngeen ko fekk nu mu gën a yaatoo ci yéenekaay bi di Vox Populi beneen yéenekaay ba tey di le quotidien le quotidien daal di ñëw nag ci li nga xam ne moo jëm ci mbëkk mi immigration clandestine euh, côte sénégalaise ak Caraïbes lu toll nag ci euh, fukk ak ñeent migrants euh, ñoom lañu ñu daal di fekk ci foofu nga xam ne mooy île bu comme ni ñu koy waxee république dominicaine foofu nag quatorze corps de sénégalais ak mauritaniens la ñu daal di euh, retrouver ci benn embarcation boo xam ne dafa daal di échoué bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay yi muy lu doy waar loo xam ne aussi euh, fekk nañ ko fa loolu yëpp yéenekaay bi xëyee na ko waaye ba tey yéenekaay bi di le quotidien ñëw na ba tey ci kii di kilifa Nidof Modignan Doudou Ñaña Diop ñoom tamit casé nañ leen loolu yëpp mun ngeen ko fekk nu mu gën a yaatoo ci yéenekaay bi di le quotidien beneen yéenekaay ba tey ci euh, bés bi mooy euh, Walf Quotidien Walf Quotidien nag daal di ñëw ci kii di premier ministre Ousmane Sonko ak euh, président de la République Bassirou Diomaye Faye sorti polémique bu PM maanaam yéenekaay bi nee na bu Ousmane Sonko génnee wax rek dafay effacer kii di Bassirou Diomaye Faye loolu nag la yéenekaay bi fësal ci xëtam bu njëkk di Walf Quotidien beneen yéenekaay ba tey du euh, Sud Quotidien moom dafa daal di ñëw ci euh, li nga xam ne moo jëm ci wàllu insécurité routière accident yi di am ci circulation bi agression ak vol yi nga xam ne dafay am fii ci Ndakaaru loolu nag nekk loo xam ne euh, lu gouvernement bi war a bàyyi xel bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi ak li nga xam ne moom moo am ci moto Jakarta yi loolu itam yéenekaay bi ñëw na ci ndax jàpp ne ne euh, chômage ak moto taxi yi nga xam ne mu ngi am jamono bi fii ci Ndakaaru loolu yëpp lu gouvernement bi war a gën a mën a bàyyi xel mun ngeen ko fekk aussi nu mu gën a yaatoo ci biir yéenekaay bi du Sud Quotidien beneen yéenekaay ba tey di Les Échos moom euh, dafa dal di ñëw ci appel à candidature euh, Les Échos nee na daal euh, bu fekkee lu jëm ci appel à yu ñu waxoon ci lu jëm ci PIB bi mun nañu daal jàpp ni euh, amagul léegi loolu la yéenekaay bi di Les Échos daal di yaatal ndax euh, jàpp ne ne projet yi nga xam ne moo jëm ci décret d'application yi nga xam ne dañ ko présenté woon ci mois bi weesu loolu yëpp yemboogul moo tax mu jàpp ne appel à yi amagul léegi bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay yi waaye ba tey neena na PM nee na nañu privilégié tailleur yi jëm ci quart euh, tailleur quartier yi jëm ci li nga xam ne mooy euh, moom la ñuy amal blouse yi ci lekkool yi loolu nag euh, ci entrée bi war a am moom premier ministre Ousmane Sonko démb ci conseil des ministres ñax na ko kii di ministre de l'éducation loolu itam mun ngeen ko fekk nu mu gën a yaatoo ci yéenekaay bi di les échos beneen yéenekaay ba tey di le témoin le témoin daal di ñëw ci vie de la nation Diomaye Bassirou jommay Faye ak Sonko face à trois équations complexes noonu la ko daal di tuddee lu jëm ci immigration clandestine euh, inondation yi ak euh, li nga xam ne aussi mooy xëyu ndaw ñi loolu nag jàpp ne témoin nee na lu euh, lu nar metti la ci gouvernement bi ngir ñu régler ko moo tax mu jàpp ne ne lu ñu war a gën a mën a bàyyi xel la loolu itam yéenekaay bi xëyee na ko tey jii di le témoin mun ngeen ko fekk nu mu gën a yaatoo ci biir yéenekaay bi beneen yéenekaay di la tribune la tribune daal di ñëw ba tey ci mbiru immigration irrégulière euh, ay néew toll nañu ci euh, fukk ak ñeent ñoom lañu ñu daal di fekk ci benn gaal foofoo ci république dominicaine muy lu doywaar waar euh, ay corps yoo xam ne daal ci état bu ñu nekk état bu doy la daanaka mun nañu jàpp ne ay yàq sax lañu fa daal di fekk. loolu la yéenekaay bi di la tribune daal di xëyee ci xëtam bu njëkk nekk loo xam ne moo am ay doomi Sénégal ak ay doomi Mauritanie ñoom la ñu daal di fekk ci boobu légal te daanaka ndaw ñooñu am nañu diggante 24 ans ak 33 ans muy lu doy li yéenekaay bi xëyee tey jii ci suba si mun ngeen ko fekk nu mu gën a yaatoo ba tey ci biir yéenekaay bi di la tribune ba tey ci beneen yéenekaay mun nañu wéy muy euh, loo xam ne aussi moo am ci wàllu mbëkk mi euh, enquête yéenekaay daal di ñëw ci lu mu euh, lu ñu fekk foofu nga xam ne mooy république dominicaine fukk ak ñeent doomu Sénégal ak Mauritanie ñoom la ñu daal di fekk ñu ñàkk seen bàkkan muy lu doy waar ci large de Rio San Juan noonu la ko yéenekaay bi daal di tuddee nekk embarcation boo xam ne daal dafa échoué ndax ñoom daanaka Espagne la ñu bëggoon dem waaye seen gaal gi daal di euh, demee beneen boor moo tax nag kii di Boubacar Seye bu ori bu ONG Horizon Sans Frontières daal di laaj nag ñu ubbi benn information judiciaire jëm ci boobu le gaal nga xam ne gisuñu ko mu nekk aussi loo xam ne xamle ne ko moom Boubacar Seye nee na nañu amal lii di assise de la migration mu lu dooy waar ay doomi Sénégal daal di si ñàkk seen bakkan loolu itam mun ngeen ko fekk nu mu gën a yaatoo ci biir yéenekaay bi di l'enquête beneen yéenekaay ba tey di euh, l'observateur moom ba tey dafa daal di des ci wàllu mbëkk mi ak li xew euh, pirogue bi nga xam ne maanaam gaal bi nga xam ne dafa daal di euh, teeri jee foofu ci république dominicaine ñu daal di fekk ay yax ak ay ak drogue ak ñi nga xam ne aussi ñooy maanaam ñu yoroon seen i ay pièces d'identité ci tefes gi loolu nag yéenekaay bi xëyee na ko muy loo xam ne daal euh, toll na aussi ci wàllu drogue daal euh, fukk ak ñaar sachet yoo xam ne dafa amoon cocaïne aussi fekk nañ ko ci wetu gaal gi loolu itam yéenekaay bii di euh, l'observateur xëy na ko ñëwaat na ba tey ci nomination conseil des ministres démb kilifa ni dof ak Modignan yéenekaay bi nee na nommé nañ leen démb ci conseil des ministres loolu ba tey mën ngeen ko fekk nu mu gën a yaatoo ci biir yéenekaay bi di l'observateur beneen yéenekaay ba tey ci euh, yéenekaay lu ñu xëyee muy le soleil national soleil national daal di ñëw nag ci gouvernance sanitaire accès au soins prévention ak réforme yi war a am ci réforme hospitalière noonu la ko daal di tuddee nee na daal kii di président Bassirou Diomaye Faye mu ngi ci indi saafara voilà am moo tax euh, jël na ay dogal yu jëm ci mbirum faj mi moom président Bassirou Diomaye Faye démb ci conseil des ministres waaye ba tey démb ci conseil des ministres itam moom président de la république Bassirou Diomaye Faye indi na euh, changement bu yaatu ci administration territoriale loolu itam mun ngeen ko fekk nu mu gën a yaatoo ci biir yéenekaay bii di le soleil national. beneen yéenekaay ba tey ci euh, yéenekaay yi lu ñu xëyee muy libération libération nag daal di ñëw. ci euh, li nga xam ne mooy infraction à la réglementation des changes douane daal di coincé Woodside lu jëm ci redressement fiscal euh, mu war ko fay nag lu toll ci quarante euh, lu ëpp quarante et milliards ci suñu ay koppor muy loo xam ne daal kii di Woodside ñoo ngi ko koy toppee lu jëm ci wàllu fisc loolu itam yéenekaay bi di Libération xëye na ko loolu nag douane sénégalaise moo ko. daal di coincé bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di Libération beneen yéenekaay ba tey di euh, réew mi quotidien réew mi quotidien daal di ñëw ba tey ci di solution assemblée nationale mu daal di jàpp ne nag euh, piège wala solution pour jommay maanaam bon Bassirou Diomaye Faye bu naree tas lii di assemblée nationale ndax naru ko jural euh, gàllankoor wala loolu solution la nar a doon ci moom président de la république Bassirou Diomaye fay loolu itam yéenekaay bi fësal na ko ci xëtam bu njëkk mu daal di xamle nag kii di président Bassirou Diomaye Faye euh, euh, lan la lan lay xaar ci mbiru assemblée nationale ak li nga xam ne aussi wax na ko saisir na ñi nga xam ne ñooy waa conseil constitutionnel ngir ba xam ndax mun na tas assemblée nationale Euh, léegi wala dafa war a xaar ba septembre mooy bés bi nga xam ne si lañu ñu installé woon ñi nga xam ne ñooy député yi loolu itam yéenekaay bii di réew mi quotidien xëyee na ko ba tey ci yéenekaay yi dañuy seeti beneen yéenekaay di yoor yoor moom dafa daal di ñëw ci euh, wàllu média jamono yi nag euh, presse bi ak lu ñuy dundu yéenekaay bi di yoor yoor daal di nag jox kaddu ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu boobu mu jàpp ne nag euh, maanaam coono la média yi di dund kii nga xam ne mooy Mamadou ibrakan moom nee na daanaka ñaari at ngi ni euh, groupe am bii di Africom di dund ay jafe-jafe yu metti metti lool surtout lu jëm ci euh, aussi mbiru fiscal bi daal di teguwaat seen kaw loolu aussi kii di Mamadou Ibra Kane yaatal na ko Aminata sar Malick moom mooy directeur général bu TDS moom nee na ñi nga xam ne ñooy chaîne yi nga xam ne dañ leen wax nañu fay euh, woo nañ leen yónnee nañ leen ay mail ak ay courrier waaye décidé wuñu tontu yooyu lee mail ak ay courrier moo tax ñoom aussi ñu jël seen dogal loolu ba tey mën ngeen ko fekk nu mu gën a yaatoo ci biir yéenekaay bi di yor yor mu nga mu nekkoon li yéenekaay yi xëyee démb comme ni ko waxee chamboulement am na ci administration territoriale muy dogal bu président Bassirou jamay fay daal di jël jël jëm ci préfet yi sous préfet yi ak gouverneurs yi muy lu loo xam ne daal euh, bëri na nomination daanaka buñ ko xaymaa daal nomination yi bëri na communiqué conseil des ministres bi gudd woon na lool. loolu yëpp la ñu fas yéene waxtaanee tey jii ak suñu ganu matinal di docteur Ali Anne comme ni ñu ko waxee sociologue la dinañ waxtaan ak moom également lu jëm ci wàllu immigration clandestine. ak li nga xam ne moo jëm ci yooyu lee dogal nga xam ne président jël na ko docteur Binlaw bi ma la nuyuwaatee. dama lay laaj d'abord sa xalaat ci li nga xam ne moo xew démb conseil des ministres muy loo xam ne euh, changement bu doy waar la gouverneur sous-préfet ñu bëri si ñoom jamono bi changé nañ leen ban jàngat nga am ci changement boobu nga xam ne président ba Bassirou Diomaye fay def na ko démb. waaw Abdoulaye euh, ginnaaw bi ñu la nuyoo euh, di la di nuyu say téléspectateurs di di kontaan ci invitation bi voilà par rapport ak question bi nga posé Euh, chamboulement bi am ou en tout cas nomination yi am démb mën nañ ko mën nañ ko lire de différentes façons donc euh, sur le plan sur le point de vue purement politique tey mm le nouveau régime à a intérêt en tout cas à mettre en place un nouveau système mhm. parce que ku wax nouveau régime euh, wax l'administration qui va aller avec donc en matière de d'organisation et d'administration territoriale mhm. xam nañ ne y a ce qu'on les autorités déconcentrées et il y les autorités décentralisées les autorités déconcentrées mooy d'habitude ñi nga xam ne état bi moo leen fay teg maanaam pour ñu jëmmal état bi ku ci mel ni gouverneur ku ci mel ni préfet ku ci mel ni sous-préfet on les appelle les autorités déconcentrées ñoom par nomination la ñuy lañ leen di installé mhm. mooy comme li ñu gis démb à côté de ça il y a les autorités décentralisé mooy ñi nga xam ne dañ leen di élire comme mm-hmm. euh, les maires et les présidents de conseil département mm-hmm. et à côté même il y a ce qu'on appelle les autorités représentatives comme les députés mm-hmm. mais bref donc c'est normal que administration bu yees nguur bu yees bu ñëwee toog en matière d'administration de gestion du pays ñu xool peut-être ay nit yi nga xam ne jàpp nañ ne war nañoo mën a ànd liggéey ak ñoom ci ci wàll boobu noonu surtout que ñooñu dañuy intervenir beaucoup sur tout ce qui est sécurité et maîtrise de de l'administration mm-hmm. donc sur le point de vue euh, administration et politique c'est normal mm-hmm. mais également am na beneen jàngat aussi euh, l'interprétation qu'on peut faire de cette situation mooy on peut envisager que le nouveau gouvernement prépare des élections souvent, euh, très souvent, quand l'administration centrale prépare des élections, ils ont besoin de mettre en place au niveau des, des localités, des départements et autres localités, des personnes qui sont censées pouvoir superviser ces activités-là et des personnes qui ont peut-être amené Donc, euh, quelque part, l'interprétation qu'on peut faire, c'est que probablement le gouvernement envisage, euh, ou en tout cas prépare les élections des élections mais comme li ñuy wax li ci kanam raw li gët mhm. on y verra plus clair. Mhm. kon daal da nga changement yi c'est parce que aussi d'un point de vue politique dañuy waajal élection prési euh, élection législative parce qu'on parle de dissolution de l'Assemblée nationale euh, dara kiyoogul mais dafa am aussi bi am solo mooy Dakar la région de Dakar aujourd'hui Alassane euh, Sall boobu nga xam ne moo nekkoon préfet bi jëlee nañ ko fa ki nga préfet ak sous préfet en même temps. oui parce que xam nga les les autorités déconcentrées ñooñu souvent ñoom xam nañ ne ils sont appelés à à être euh, nommés mm-hmm. ailleurs à tout moment ñoom ils se préparent à ça ils maintenant aussi c'est vrai que ku nekk ci benn dëkk hmm. ñaari autorités yi bu ñu leen déplacé en même temps hmm. waaw mun nañ ci am benn lecture lecture bi mooy am peut-être mun na am euh, benn gàllankoor bu ndaw ci wàllu maîtrise hmm. euh, bi war a am ci ci administration bi peut-être euh, dinañ am des personnes yu am performance yu leen remplacer mais am na un côté positif mooy que les autorités les les gens doivent tourner bi dafa war di am. donc sur ce point de vue partage d' day am. Euh, autorité dañuy tourner ku nekk li nga jëlee fii nga mën ko yóbbu fële. ñoo ñu aussi profité ci expérience boobu donc am na un côté positif. mais am na un côté négatif côté négatif mooy comme la wax ñaari autorité bu ñu leen déplacé en même temps. Euh, expérience bu ñu amoon ci ci ci Dakar expérience bu ñu amoon ci maîtrise sécurité Dakar xam ruq-ruqaan yi xam qu'est-ce qu'il faut faire xam comment agir expérience boobu yëpp amaana euh, ñii ñëw bees forcément duñu am même expérience parce que Dakar bokkul ak yeneen localité yi donc na ñi ñëw bees duñu am gis naa ne ki nekk Pikine aussi apparemment dañ koy yóbbu en région dans les régions à l'intérieur en tout cas y a beaucoup de gens qui étaient à Dakar en tout cas qui ont été déplacés donc côté négatif bi mooy ñii ñëw mun nañu bañ am expérience boobu noonu mais bon comme on on est plus ou moins dans un environnement politique plus ou moins stable plus plus ou moins parce que yaayu de eu des des peut-être que ñii ñëw bees dinañ am temps peut-être de de trouver leur marque avant espérons euh, en tout cas muy am ay manifestations wala de situation comme manque de confiance mu na aussi parce que gis nañu quand même euh, ku nekkoon gouverneur de Saint-Louis si ay jamono euh, moo nekkoon fii ci Ndakaaru ci ay manifestations yu doon am Ousmane Sonko doon dem euh, tribunal souvent moom moo fi nekkoon amoon ay kaddu yu mu yëkkati. moom aussi mbiram doonul lu ñu bett est-ce que loolu aussi daf ci daf ci am maanaam jeu politique boobu daf ci am ngir teg ñi nga xam ne ñoom nga wóolu ngir ànd ak ñoom. nomination moom ko déggee rek. Mm. xamal ne yaa a un élément fondamental c'est la confiance nomination day ànd ak toujours confiance maintenant confiance bi ça peut être de deux niveaux mun nga ko construire de deux niveaux benn niveau bi bu mooy bu gën a terre à bi mooy bu gën a basique mooy nit ki nga xam ne peut-être yow am nga benn euh, idée ci moom par rapport ak lu mu wax wala lu mu dund wala lu mu def yow ci sa bopp am na benn idée boo am ci moom ba tax na yow nga am confiance yi moom wala nga bañ a am confiance yi moom la confiance c'est un processus qui se construit mhm. il également une autre façon de construire en tout cas d'établir un rapport de confiance avec une autorité et c'est ce qu'on appelle les appels d'offres les appels d'offres parce que tey boo dajale ay nit ñu càmbar kenn xool ba xam ne kii lam war a def mën na ko am na capacité bi ci côté humain am na capacité bi ci côté expérience am na capacité bi ci côté formation buñ ne la kii war na ko mun def loolu aussi day établir un rapport de de confiance mais très souvent ce deuxième niveau là qui est le niveau d'ailleurs le plus important et le plus objectif suñu nguur yi fii ci Afrique du ñu egg ci niveau boobu niveau bi ñu yem rek mooy euh, lecture bi ma def ci nit ki xalaat bi ma ci am idée bi ma ci am man ak samay xarit souvent noonu la ñuy établir rapport de confiance et malheureusement les nominations euh, se font sur sur cette base la donc naturellement y a on peut en déduire qu'il y a qu'il lien surtout boo dellu see ci li ma la wax sànq euh, nguur bu bees la nguur bu yees la nguur ku wax nguur bu yees wax ay nomination yu yees mm-hmm. est-ce que aussi euh, euh, docteur est-ce que nekkul en même temps aussi euh, même système bu fi nekkoon parce que chaque fois ku ñëw rek placer aussi des hommes de confiance comme ni nga ko waxee chamboulement boobu ngay am ci kii wóolu naa ko kii wóoluwu ma ko est-ce que aussi c'est pas un éternel recommencement aussi oui xam nga l'administration au niveau de au niveau du Sénégal euh, booy euh, xool très souvent on a eu l'expérience historique mm. dans l'administration la justice administrative aujourd'hui Abdou Diouf bi mu ñëwee euh, les on l'a on vu il, il a voulu à un moment donné euh, chambouler les choses avec sa jeunesse et, et, et toute sa rigueur mais à un moment donné les l'histoire et l'histoire l'a rattrapé avec Abdoulaye Wade c'était un peu le cas on l'a vécu en 2000 euh, les gens ont considéré que tout allait être bouleversé à à 200 pour cent mhm. mais à un moment donné euh, les faits l'ont rattrapé mhm. Pareil pour euh, le président Macky Sall et aujourd'hui pareil pour le pour le nouveau régime. En réalité, en réalité euh, ce qui se passe c'est que euh, l'administration li ñuy wax la la réalité du pouvoir dafa am. Mhm. On a beau vouloir le nier, on a beau vouloir se dire que on va pas subir les conséquences de cette administration du pouvoir là, mais dafa am. parce que même boo ko jëlee nga def analogie bi ak une entreprise ya a ce qu'on appelle l'expérience. Mhm. yaa ce qu'on appelle l'expérience tey mënuloo ñëw tey ci entreprise nga ñëw nga fekk des gens yoo xam ne benn am nañ benn expérience bu avérée bu sûre bu claire boo xam ne tey njëriñ la mën lañ ci profiter boo bëggee ñëw nga ne da ngay def au nom di changement nga ne da ngay chambouler yëpp aussi ce recommencement à zéro état mënul fonctionner noonu entreprise mënul fonctionner noonu donc en réalité cette rupture la systémique bi ñuy wax cette rupture-là mhm. euh, ne peut pas se faire à 360 degrés. donc euh, li ci des nag waxu politique la. Mhm. mais la réalité est têtue. Mhm. d'accord euh, ba tey ci nomination yi aussi on a vu ah ils ont placé leurs hommes aussi on a vu des artisans yoo xam ne ku ci mel ni Nidof ak euh, kilifa nommé nañ leen PCA lan mooy sa jàngat par rapport ak nomination yooyu. oui. Euh... man nomination yi de manière générale euh, day dellu si si principe wax euh, ki ci mel ni nit doof ku ci mel ni kilifa c'est des gens yoo xam ne ils ont combattu à côté de du nouveau régime mm-hmm. d'accord ils ont combattu à côté du nouveau régime même si peut-être man dama jàppoon ne mm-hmm. euh, dañ ko def en tant que citoyen yoo xam ne peut-être Sénégal moo leen tax a jóg mm-hmm. ils ont combattu alors euh, au moment de de mettre des gens au devant de la scène. Mhm. bon on peut mën nañ nangul aussi le président Diomaye le fait que mu jox leen des postes de responsabilité na mhm. est-ce que partage de gâteau la ça en a tout l'air mhm. ça en parce que Sénégal je pense que jot na aussi ñu egg ci niveau boo xam ne un patriote di nga xeex pour benn mbir mais pas forcément parce que da nga ci war a mën a profiter nga jàpp na lii da nga ko xeex pour dëkk bi appui boo boo paree parce que citoyen c'est ce qu'ils font. joxee nga delloo nga ne non c'était pas pour ça. Euh, c'était pas pour ça. Mm-hmm. c'était pas pour ça wala sax du question de sax nga delloo mais. aussi nga mun a contribuer d'une autre manière mm-hmm. tey parce que c'est cette alternance c'est pas ñoom ñoo nekkoon ci télé di wax mm-hmm. mais c'est pas eux qui que ñoom ku ci nekk benn carte nga am donc il y a une masse populaire derrière yoo xam ne ñoo doon nekk ci mbedd mi est-ce que ñoo ñëpp mën na leen récompenser ñu ci nekkoon ci mbedd mi di xeex di sànnante peut-être ñooñu tey dellu nañ seen liggéey je pense que loolu aussi il faut que benn instant ñu àgg si mais loolu nag c'est un travail individuel ku ci nekk booy engagé ci sa réew d'abord mu nekk pour l'avancement de sa réew mais peut-être que aussi euh, mënuñ leen bañal buñ demee ba nominal nomination dab leen ci mu nekk domaine boo xam ne ñoom am nañ ci expérience parce que grand théâtre Kilifeu c'est un homme de culture Nit Doff aussi c'est un homme de culture donc am nañ expérience ci wàllu ci wàllu boobu peut-être ce c'est le côté administration, management et gestion. Peut-être c'est là où on peut s'inquiéter un peu. Mais j'espère qu'ils se, s'entourer de personnes qui vont les aider à réussir Mais c'est des, des, PCA, hein, c'est pas des directeurs généraux. Est-ce que aussi PCA, c'est juste pour euh, récompense comme Nico Nyanani Diapé Parce que quand même, les le directeur général L'idée de récompense, mon hmm. L'idée de récompense, mon L'idée de partage de gâteaux, mon Maintenant, la vraie question, moi, est-ce que récompense boobu ñoom dinañ ko mérité mm-hmm. est-ce que récompense boobu Sénégal dina ci gis boppam mm-hmm. est-ce que récompense boobu culture dina ci gis boppam est-ce que récompense boobu jeunesse Sénégal dina ci gis boppam te loolu y a que l'avenir qui pourra nous mm-hmm. ñoom tey nañ jàpp ne am na lu ñu xeex am na lu njëkkati teg ko seen loxo récompense la certes c'est claire que récompense la mais aujourd'hui nan la ñuy def ñoom ba tey suba récompense boobu nekk njëriñu réew mi mm-hmm. c'est ça la la la le questionnement qu'il faut se poser mm-hmm. ki leen récompense aussi teg leen fa aussi moo mm-hmm. xam ne le rôle d'un leader parmi les quatre rôles d'un rôle d'un leader c'est le rôle de contrôle moom aussi mu teg ay mécanismes yoo xam ne dina leen permettre ñoom ñu xam ne récompense nañ leen jox nañ leen benn cër mais également cër boobu noonu y a un système de contrôle qui est là parce que loolu aussi c'est important yow mi joxe cër mhm. nga wane ne jox naa la cër waaye mhm. système de contrôle bi mi ngi fii mhm. loolu dinañu permettre ñu éviter yenn écarts yi je peux me tromper hein mais je pense que c'est une première quand même deux rappeurs PCA est-ce que ça montre aussi l'engagement aujourd'hui des des des des artistes aussi ci langue politique bi parce que kilifa quand même mu ngi fi woon en 2012 et que yàgg nañ fi nekk Macky Sall taxul mu def leen ko est-ce que ñii nu dynamique mu ñu jàpp ni narul changer un peu la donne ñenn ñi jàpp nañu quand comme ni nga wax sànq dañuy xeex après pour avoir pour quand ñu mën a récompenser leen boo doonee artiste aussi da nga war a dugg ci langue politique bi. benn mhm. wane na effectivement lecture bu ñu ci mën a def engagement homme de culture yi. Mhm. souvent nekk na loo xam ne aussi. peut-être dinañ ko doon gis mais pas de manière aussi affichée les hommes de culture souvent c'est des personnes yoo xam ne c'est des personnalités yoo xam ne dañ fi nekk pour ñëpp booy musique da ngay musique pour ñëpp booy nekk def culture da koy def pour ñëpp souvent nekkul ñoo xam ne dañu doon jël ay parti pris de manière aussi affichée oui. n'est-ce pas mais ils arrivaient à sensibiliser à travers leur culture à travers leur art et ça ça concernait tout mais booy xool am na benn évolution bu am entre cette jeunesse culturelle kon a eu autour de Y'en euh, boo xam ne tey ils se sont engagés ils sont ils, ils ont combattu contre l'ancien régime mais booy xool juste après les les élections la vocation c'était pas d'occuper des fauteuils dañoo dellu après ci seen liggéey s'organiser autour même peut-être de la société civile développer d'autres activités utiles toujours pour le respect des principes démocratiques donc ils étaient toujours dans le combat mais à travers benn canevas bu dul occuper ay fauteuils mm-hmm. donc tey sentir nañ benn évolution on est passé de cette euh, jeunesse culturelle boo xam ne da def combat bi juste pour le principe après dem dellu ci liggéeyam à une jeunesse culturelle boo xam ne tey ils aspirent à occuper des responsabilités mm. mais bon il y a un